صحات لي رب البرية البدن أصبت قبل من خلوني بددا صحات لي رب البرية البدن أصبت قبل من خلوني بددا فديتني ربي بسر وهلا صعصعت عني عداك بولن رفعت ما دار لي وما بتن مني منورا بفضلي للعتن bisub tay dara warulu ko lu dul jàmm boo xam ne suñ borom da ko tegoon ay nattu natu ye jeex muy sant sante googu nak la wote ne kep ko xamne man nga ñew jappale ko ci nga ñew lolo fi waral suñu daje motax ñun mbokk tay bi tamit bi fa dajje li nga xamne moy suñu waru gar moy niko suñu bi diglé ci santale ko boromam ci bernde li commencé ci ganar bi ci ak li nga xamne manam mooy teeru nit ñi ak teral leen loolu mooy suñuy activité fii ci kër gi ci lañ fi nekk yaa man li fulki ya bi li sirran nafasa yulfitan bi xulafa minhum lay sulxatan nafatani bisul furudi wa sunan wa sahbi wal amlaki astamtal minan nabatani ashabu taxan ni yalxatan génn ñu ci li li sëñ bi digle maanaam mooy màggal goo xam ne dafay ànd ak li état bi digle mooy respecte mesures barrières yi mooy du tee nag lañ doon def lépp def nañ ko liñ daan jënd ci ay bernde ay nag ay giléem yëpp def nañ ko mais du tee tamit ñu sàmmoonte ndax li nga xam ne moom moom la jamono laaj daal def nañ ko waaw ci sàmmoonte ak yi ñoo ngi laal sel bi ak donte masque yi moom xëy na eh, dese na fee yaatu mais du tee nag moom ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax organisation bi nag weesuwul dara lu dul ñi war a nekk ci wàññi muy jigéen ñi ñoo nga ca orga jiite ko ñun góor ñi ñoo ngi féete ci njàng mi ak di teru gan ak di maam daal mën na maa wax ne loola daal ndax màggal gi moom mënta génn ñaar yi mooy sant la yàlla suñ tuwaa ci bis bi nga xam ne ci la ko defee loolu nga xam ne ci la loolu la bëgg léegi nag loolu lañ fi ñëwaat pour tekkal ko rek mais mu leneen lu fi yees lu dul loolu bu njëkk nit ñi daan dañoo xewaloon safar ba ñu ci bëree bëri li ñu waroon di def ci safar yi dañoo mujjoon li ñu waroon def ci màggal gi dañoo mujjoon di ko yemale ci safar yi am na ñoo xam ne dañ daan jënd nag def nangam te bu màggal Tuubaa jotee li ñu waroon a def ci bis bi duñ ko def te nag Sëñ Tuubaa bis bi la tànn ne nañ ko ci santal yàlla ndax lépp lu mu bëggoon ci la ko amee waaw léegi nag si li tax sëñ bi wax loolu maanaam moo di nit ki li ngay jël di ko def ci ay safar yooyu noonu nga téye ko ba bis bi nga xam ne moom la borom bi di suñ borom bis bi dégle woon ko ko ci def ñu dajale ko bu dee ñun tamit noonu lañ doxale li nga xam ne moom lañ dajale woon ci ay àddiya daan ci def ay safar wala yeneen ak yeneen dañu koo jël ñun amuñu ci sax xalaat sëñ bii lañ ko jox sëñ jëli mu sëñ laat moom moo xool la nga xam ne moom moo ko ci décidé mu def ko mais ñun bi ñu ñëwee sax waxuñu ne ñun ñooy féetewoo lii wala lii fii lañ koy dugal mais dañoo jël lépp loo xam ne dañ ko daan def ci ay safar wala daan ko def ci màggal gi ñëw jébbal ko ko benn yoon moom nag moo woowaat ay nitam jiitale leen ñii mu jox leen wàllu waañ wi ñii mu jox leen wàllu beral teral gan ñi ñi manam wax leen fété wo leen yenen dal yi nga xamné nekkun ci biir kër gi waaw loolu manam motax ñu ñu def ko ni mais amul dara lu ci sensé mom lo xamné manam maanaam ni ko sëñ bi bëggé dal défé nañ ko non sëriñ bi yaangi ngi donga yaa ngi nun soppe yaa